internet yu Dakar Midi gannaaw bañ leen nuyoo di leen ziar ku gis ñi toog ñoo ngi fi nga xam ne mooy eh, Grand yoof eh, ñoo seet fi suñu benn mbokk julit mu amal li nga xam ne mooy tawat tawat bi nag ku ko gis xam na ne wax dëgg yàlla métti na ñu fas yéene jox ko mu wax affaire bi na la demee allah gannaaw bañ leen nuyoo di la ziar nga présenté wo rek wax. Eh, maa leen di di leen ziar di kontaan ci seen ñëw bi ngeen ñëw fii Aida mi sama mag la si man déggul olof moo tax ma ne xaar ma ñëw représenter ko pour mën ko waxal ñun tànkam bii nii dimanche la ko commencé dal dimanche daal la jékki-jékki tànk bi di xasan noonu muy metti di metti mu fanaanoo ko xëy tànk bi néew yi toll nii ñu ne déet waay daw nañ ci diggante bi sax ci ay sëriñ ñu jot ko moccal am na sax am fas buñ ko defaral ci tànk bi nii mais ba tey tànk bi arrêté wul mu ngi génnee ndox di xelli amul sax une semaine mu mel nii koo gis xam na nekk vraiment lii dafa metti tànk baa ngi di xeeli ndox boo xamante ne maal day taale kenn du ko mën a jege ndax tànkam bi ñu ngi ñaan na képp koo xamante ne day dox ci social mu jàppale ñu ñu mën a euh, faj tànkam bi moom feebar bi nee na musoon na ko dal ba mu nekkee gine mais meluloon comme nii dafa xawoon da ko xawoon dal nii ñu faj ko mu wër mais bii nii nu mu nu mu ko jàppaatee dafa métti dafa graaw ndax dimanche la ko jàpp même pas une semaine tànk bi mel nii mu ngi nii weñ ñaa ngi koy topp nga lii dafa métti. waaw. tey ñu ne dimanche. maanaam li fi jékki-jékki affaire dal ko wala lu mu lekk wala lu mu allergie li nga xam ne mooy dal ndax li koo gis wax dëgg yàlla xam ne dafa nekk. Mhm. jamono yi teewul bu nekk mooy dal ki nga xam ne mooy doomu aadama. Mhm. waaw. ah peut-être xamuñu ñun xamuñu xamuñu allergie la xamuñu nit def def la xamuñu tamit ñun daal ñu ngi tàll tàllal suñuy loxo rek di ñaan yàlla ñu jàppale ñu ñu faj suñu tànkam bi. Mhm. mais est-ce que génn dem ki nga xam ne mooy hôpital ñu war ñu wax leen li nga xam ne moo dal ki nga xam ne mooy wala dafa na ko dal Guinée mais melu woon nii comprendre nga woon nii daloon na ko ñu faj ko mu wër mais bii dafa dafa dafa gën a metti par rapport nu mu meloon parce que bii dafa gis nga dafa futu en plus def ay góom di génnee ndox boo xamante ne dafa xeeñ waaw moo ko dal dem nañu hôpital nag moom dem na hôpital ba mu yeggee dañ ko perfusé bindal ko ordonnance mais waxaatuñ ko ci dara moom tam depuis loolu delluwaatul. non moom moo demoon hôpital moom moo demoon waaw ba mu demee da leen woon tànk bi médecin yi dañ ko perfusé jox ko ay comprimé jeex na waxaatuñ ko ci dara bindaluñ ko dafa war a def analyse wala leneen ak leneen def bindaluñ ko dara. ah. waaw lépp mën na nekk tamit parce que Sénégal mën naa ne la majorité des partis moom waxuñu dara ci ci étranger te gëm naa ni nit nit la rek ñun ñëpp ci yàlla lañ jóge étranger keneen ak keneen ku nekk da nga judd fekk sa xeet ñun mënuñu ko dindi waaw pour man nag nit ak jullitam bu amee feebar wala mu dara dal ko war nga ko mën a jàppale te yàlla tax bul xool lu mu doon wala lu mu nekk wala lu mu nekkul. est que yéen génn ngeen wax ñi nga xam ne ku dégg grand bi dem ngeen ba ne ñu ne temps lañ koy waxuñu leen dara ba léegi waxuñu ñu dara demuñu fenn demuñu fenn waaw dañ ne xaaral rek kii ko ci média yi comme suñ ko jaaralee ci média yi ñu bëri nañ ci jot parce que même bon volonté yi nekk fii tamit pour nga gis leen day jafe te lii mënul xaar lii lu li nga xamante ne amagul une semaine mu ni comme lii bu amee deux semaines ba trois semaines ba un mois mal détaillé kenn xamul nu muy mel ci ëllëg demuñu fenn nag ñu ngi toog xaar yàlla ñëw ci média yi pour ñu jàppale ñu mu faj tànkam bi. ma ñëw tuuti rek si li nga xam moom xam ne doo ñemee li nga xam mooy xool. <laughs> dañuy jàppoon ne woon li nga xam mooy def def maanaam xar foofu wala dafa. jékki-jékki dal ko carrément wala dem nga si li nga xam ne mooy olof yi gëstu ba xam. waaw nee na moom dem na ci faju olof yi mais ñii dañ ko ne def-def la ñii tam dañ ko ne lu jóge si yàlla la mais nee na moom du taxaw fenn na ma nit a liggéey nee na moom attanul baakaar boobu nee na moom day jàpp feebar bu jóge si yàlla la rek muy ñaan ndimbal pour ñu jàppale ko mu faj ko. soo doon soo doon woote tey wala ñaan tey kenn ñaan ak yan kàddu yu mujj ngeen ma jox xam ku la bëgg a jàppale tey yaa fa jaar. ku ñu bëgg jàppale mun nga jaar si numéro yii nii euh, am na Wave am na Orange Money 77 716 71 16 am na tam suñu Expresso 70 881 19 46 ku ñu bëgg jàppale mbaa nga bëgg ñoo dimbali ba ñu woowee ci numéro yooyu du ñu jot. numéro bi 77 716. 71 16 am na expresso tamit 70 881 19 46. léegi mu nga xam tuuti li nga mais léegi que gars nga depuis depuis démb mhm. que am nga xam ne woo na la. Mhm. nga xam ne affaire baa ngi daw ci réseaux sociaux yi mais depuis démb kenn woowaguma kenn woowaguma nag mais maa ngi déglu. Mhm. ñoo ngi déglu mais kenn woowaguñu moom non déglu olof mhm. non lii moom yëg-yëg bi moom fuñ la ko mënti wax rek weesu na ko ndax ba nga ñëwee da nga fekk muy jooy xam nga mag bu demee bay tuur ay rongoñam xam nga ne am na metit loolu la métti na torop ñu daal ñu ngi ñaan képp koo xamante ne day dox ci social mu jàppale ñu ñu faj tànkam bi futsala ah, komine wolɗo sina ko wawɗo wo wallami tawi jemmare nde fof on tigi danata ko guilay dimasi hadde hande a ñamata a yarata a musede nokku goto sa ari ɗum ɗo ko ɓay mi ala ko wallanmi ɗum waɗi yamanno komi wallanmi no arde monnotako par ce ko goɗɗo waɗimi mi watawide hay goto min ko allah alan ɗon mi anda ay jemma peetum ndanta ko ndiyam mi yarata simi yari ndiyam bimbi kekeɗe ko ɗum tun allah simi yari neskape seeɗa ɗum ɗon tun ayi ɗo kam yaari o sina tassimi ɗetti mi wata yaade ha simi yehi ɗo sofugol ta ko immagongo ko kara han immagol dar joni noon jemman peete aɗanta ko ñalorma aɗanta ko tawi ɗum waɗi ha notti ɗum ɗo tawi ko mami tawi mami waɗa ɗum ɗo tawi mi ala wallam kalano wawɗono wayla wallude na moom day ñaan képp koo xamante ne war na ko mën a jàppale mu jàppale ko mu faj tànkam bi li ko dal métti na trop nee na du lekk du naan bu xëyee kafe daal lay naan tàngal biiram bi lu ci des ndox la kese lay naan nee na lekkul naanul ndax lii dafa metti nee na mu ngi ñaan képp koo xamante ne jullit la di dox social ak mu nekk ci beneen tarixe mu ngi lay ñaan yàlla nga ñëw jàppale ko mu faj tànkam bi barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam